sallallahu alayhi wa sallam moom Sidina Momar Assane mu nekk ci biir sénégalais yi nit ña doon tiim raw du yonent bi ñu jékki-jékki ka doon garde xabru ba waaxu ci biir nit ñi di wër di wër di wër ba yegsi ci moom ni ko samaam nee na jege si ndax ñi fi ñëw yëpp kenn gënu laa yegg moo mën a sant moo tax bàyyi laam rek doy na ci pas-pasu gëm ni ma amul am déet mu bàyyi bàyyi laay fii ci yow dem ba mag ànd ak way aj yi kay garde kay garde yonent bi ni sa maam nee na nga jige si nga jige si nga jige si ndax ñi fi nekk ñëpp kenn gënu laa yey ci moom. sëriñ bi Thank you. xamante ni bésam moo fi jóge àdduna yëngu kenn dootu ko fàtte salaata yaa nu na ci sey bi te ñaanoo mag ñi te moom Mame Alassane moomu mag la ci biir mag ñi kon ñaanam gii nag ñu watu ba pare Serigne Ousseynou Laye doomam wax na ko mu nekkoon ku gëm yàlla te nangu tey dogalam day daal ku gëmoon yàlla ku nangu woon ay dogal ku jaar ci ay ñetit la waaye lépp mu jënd ki ngëm yàlla mag doy loo Seydina Limamou te it ci jamono jooju la ñu nekk waaw jamono jooju la ñu nekk gars yi bu ñu la xam te bismillahi rahmani rahim afara'aytum in ja'ala lakum laylan sarmada ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru llahi yatikum bi da'i afala tasma'un fii waxtu wi toll may waxtaan ak yéen dem may waxtaan ak dem yàlla dafa bàyyi ba jamono jii ñu toog di wax mu indi guddi guddi foog naa nekkatuñu ci bëccëg ñu ngi ci ci guddi ay bëccëg bëccëg dem na lu mu indi guddi loolu kenn moomu ko kenn manu ko ku dul suñu borom dama ni nanu jël mbir yi jébbal ko yàlla kon du nu te bañ di tiit ak di mer ndax yàllaay ki def li fi am diglu ci guddi lanu ne ci guddi lanu ne alxuraan moo àddu dafa ni in jaala raw lakum layla sarmada ila yowma alqiyamati man ilahun gayrullahi yaatikum bi diyaain yàlla dafa ni dafa ni pour ñu xam ni yàllaa fi nekk la te lii may wax lii may wax lii may wax képp koo xamante ni am nga xam-xam wala sa wërsëg may na la ko wala sa juddu may na la ko nattal sa bopp ci diggante nit ak jigéen ak nit ak jinne dama wax ni yàlla nee na su ma bàyyee ba xaaju guddi fi guddi gi toll nee na ma indi guddi ndax yéen doomu aadama nit ak jinne bu leen dajalee seen xam-xam ak seen wërsëg man ngeen waxaat ba xëcc jant bi mu ñëw leer wala dëgg d'accord noonu ni kenn mënatul wax léegi ba bëccëg ñëw lu tax mu dul moom mooy indi bëccëgam yàlla mooy roof guddi di rocc bëccëg yaxruju ah. zulum mooy roof guddi di di bëccëg di rocc guddi di roof bëccëg déglu day gaa yi na la ah. buy tëj di ñëw lii ru muy àndal ak dooleem yàlla tàggat na jant bi ba ni muy dawee ak la muy foor ñun duñu ko yëg lu dul yëg ni jant baa day sooy am de bu jant bi sooyee du guddi jot nee na bu leen dajale seeni xam-xam dajale seeni xel yéen nit ak jinne ngeen indil ma jant fekk guddi indil naa guddi loolu di ci loolu di ngeen ko wax ñu yàlla fa ngay muy déedéet su ma bàyyee xam nga fi mu nii teew teew teew bu vieux ñoo nga demoon këram ni jabaram siretment bi fóot ko nga weeral ma ko léegi moo xam nga lu ko soxnaam yor da koy wax ni jant bu ko wowal nekku fi. dëgg la am déet yàlla de yàlla bu ma bu ma indee guddi man ngeen wax ba jant ñëw ñu ni ko déedéet mu ne waa su ma indee janta mu naaj doon sowal waxtu bi dina jant bi tàng jëf yàlla ni ndax yéen nit ak jinni bu ngeen dajale woon seen xam-xam ak seen man-man. man ngeen wax ba di ñëw ñu ni ko déedéet mu ni kon xam ngeen ni man maay roof guddi di rocci bëccëg maay rocci bëccëg di roof guddi mu ne am ni ko kon ngeen nangu ni lépp ci samay mbir lay doxe ñu ne waaw mu ne ko ku am googu kóllëre sa borom ka neen koo wéeru ku moom yàq nga ko nga ni subhaanallahi اسم اذا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تنم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستقسرون يا الله كي ربي وخلي أما هو كمان يعني؟ لو بيجي كم غدفني كم غدفني بني تود يا الله من من يا الله بني ما يتود بني ما يتود من كيف من كيف بني ما يتود من كيف ما ينوره yéen gulit ñi bu ñu leen tuddal ak yàlla da ngeen di banku kenn du sawar te bu ñu tuddee ñeneen ñoo xamante ni du ñu man lazina la wax ismu mawsulil axir la mu ne bu ñu tuddee ay nit maanaam dafa bëgg a wax ni bu ñu koy tuddee yàlla ñëpp ni tekk bu ñu woon Seydina Limaamu ñëpp daal nga ni Seydina Alaaji Maalik ñëpp daal nga ni Xaadimu Rasuul ñëpp daal nga ni Baay Ñas ñëpp daal nga ni Bukunte ñëpp daal yàlla ni iza zukira laahu wahdahu buñ may tudda man rek gis ma azat bulubu la dina laa yumin na fi axir nga gis seen xol yi taxaw sawaru yëngalu na seen i cër jaayu waaye nag wa isa zukira bu ñu tuddee lësina yeneen gaa yi nga xamante ni ay doomu aadama kese la te maa tax ñu mel nañu mel maa leen melal sama kàntan maa leen ëpp du ma ñoom du ñu man du ñu man du ma man buñ leen di tuddee lu ngeen am joxe ko ngeen bëgg miin daaru fërëmu kon yàlla ne ne bu ñu koy tuddee ne ñëpp àddu koom nga ni subhanallah day na wa shaffatayni wa hadaynaahu najdayni déglu biig nelaw naa li wax faal biig nelaw naa biig nelaw nga ku fi toog biig nelaw nga Pape xam ni kan ci kuy jël di dénk sa bopp bay boo dénk sa bopp yàlla mayul benn jaam booy loo mu xam li muy mujjee xalaat doog nelaw te nee na kalaa nelaw dama lay pikiir te bu may yëg si di la pikiir riir àndal te yow mi tëdd di waaj a nelaw doo dégg sama riir bu ma lay jam ci bi lay nelaw loo dinaa la ko jam ba mu dugg ci sa nga mel ni ku ñu anesthésié te doo yëg bi ma lay jam ci bi moo tax li ngay mujjee nelaw li ngay mujjee xalaat doo ko nelaw kenn xamul ko dul yàlla dëgg am yaa may dégg alors nag alloo ay léegi dama ni ñaari bët il faut ni ni waxtaan ci yàlla pour nit ñi xam ni yàlla laa fi nekk ku dul yàlla jaamu yàlla nga am de eh xalaxakum kon fi mu tulli ummahaatikum xalaxakum min buyuuti ummahaatikum fekk na bii laa limul yi ma yees déglu déglu ndey ak bàyyi jur lañ ci am doom ndey day taxaw ni may yaayam bàyyi taxaw ni may bàyyam bàyyi sëy bi bàyyi jëkkaar amul ben baye buy taxaw wala ben nday buy taxaw ni sama dom gi bi mu juddo ma jël sama sisu, wala sama lañse daggal ka ay bëttum am det amul ben baye bu ni maa xar gémmiñam amul dañu waxtaan ci taw yi diglu leen ñu waxtaan ci yalla tout amul ben baye bu ni ma posé ay bëñum am det amul benn bàyyi wala ndey bu ni maa poose ay wewam amul benn bàyyi wala ndey bu ni maa ko defal ay xefam amul benn bàyyi wala ndey bu naan maa yett ba ñu kaw tëral ba ñu suuf yàlla xaral xarala ba ñu kaw yi da kay yàtt dem ba ci ba ñu suuf yi mu tëral ko lu tax jëlul ba nu suuf yi mu tëral mu yett ko mu féete kaw loolu dafa ñëw ba ci kaw mu yett ko bàyyi ba mu dem ba ci suuf mu tëral ko xare teer la ci def dégg xam nga ne lu ma ci dugg dama bëgg loo ciy màtta mu dang loo ciy sàq mi mu ñor bu ko mag fii ngay màtte fii lay dagg fii nga koy sàq alam nag allahu ay day ala yem ñu déedéet wala saadal ma sàpp day wër day naaw nag day dal tayri wala dal sàmm déglu mu jël yéen yéen pooseel la ko utal la ay xeef sa gito boo demee ca ngelaw la sëriñ màgget bu poussière bi baree ba nar dugg ci say bët da ngay wàcc say xef yàlla def na ci automatisme boo xamante ni boo naan teg sa bët rek xef di wàcc bu fekkee lu doomu aadama balaa xef day jël loxoom yëkkati mu xef kon di nga fàttu ba tàyyi waaye yàlla nee na bu ngelaw duggee ànd ak poussière ak luy gaañ rek bu nee xeeral jëm ci sa kaw rek nga bindal naa la ay xef boo naan teg muy daanu mu tudd xef bañ na ko ba xef la tudd xef rëkk jërëjëf bàcc bindal la ay xef xam nga lu mu def yàlla ca muy déedéet lu tax nga yëkk ba ñu kaw mu ni bëgg na ciy daggee lan moo tax nga yëg nga nga tëral bëñu suuf mu ni bëgg na ciy sàqamee waaw yàlla mu ne ah, mu ne ko bañ gémmiñ gi lan li li ci dugal lan la mu ne laam nañ dama yett kanam gi ba ma yett kanam gi ba mu sew ma yaatal ci biir dama loo xamante ni bu la ko doo ci bàyyi xel fekk loolu xarañte yàlla la dafa yett ji ba yett yett yett laam nañ dund ko ñu ni ko waaw yàlla làmmiñ bi lan moo tax doo mu ni làmmiñ tooy moo ko dégg tooy tooy ñu ni ko tax mu ni làmmiñ wii di tooy tooy bee mën a tax muy yéeg di wàcc bu fekkoon dafa wow taxaw benn place doomu aadama du mën a wax soxla kenn du xam lu ñu wax waaye dama ni lii kan moo ko man nabi subhanallah lay lay la ko jël subhanallah koo xam ne sañu la toog wax dëgg yàlla koo xam ne nag sañu la toog te ñun ñoo bokk lépp ah da ngay xamal ne jàmbaar nga waaw da ngay xamal ne jàmbaar nga ndax bu toogoon lu bari dana yàqu waaw parce que mbir itam noonu la. ñëpp du du du du am de taxaw de. ay de l'hiver barab lañ jógee jëm ci barab te ñun ñëpp ñoo ko ànd suñu bët di xool amoon xale day ràññee bu baax a baax dootuñu ak xale te war nañu àdduna bi liggéey moo def lii liggéey moo def lii bu leen toog mukk di mbébét rek te du ngeen jëf bu ngeen jëful du ngeen kon nañuy rafetal kàddu yi te alxuraan daf ñu tere jëw bàyyi lay tere ñu wala yartab baadukum baada bu leen jëwante loo mën a wax ak ci rux woo ko nga wax ci rux waaye bul ko jëw parce que jëw kenn du ko def góor baaxul waxtaan ak yéen waaye amul benn saa bu ñuy xalaat nii nit dina wax mu wax mu dépassé ñu déedéet parce que ñiy wax ñëpp ak yëngu defar moo leen tax nit du am. daa ñëpp ay mukallaf lañ ñuy yëngu ci diine ji ñooñu dañoo ne respecté ci biir loolu ku responsable du ko def responsable du ko def li nga war a wax ci mboq mboq mën na wax nit ki rox kooka nga wax ka ci rox waaye bu ko damay wax toujours ci ñun ndaje bu ñu dajee di wax lutax mu ne ñii maag ñom ñoo bokki bay ñoo bokki mam ñoo bokku xet kon lu ñaw xaju ci suñu diggante ñun ñi ñëpp ñoo bok lu ñaw xaju lu ñaw xaju kon bu ko fi kenn xajal dañ wax rek rafet parce que ñu ñuy ànd ak ñom xam nañu doomu adama bo gis lay wacc ci mom suñu borom moko dogal lu jitu juddo motax nit ku baax dafa am xol bu yaatu te rafetal surtout di rafetal tey dana la noonoo te bu la noonoo dootu leen